dem ba tuuma ja safloo waa joojee bokk ca reeroob ba si ni ko mufassiroona yi waxee ni ki nga xam ni firikati alquran yi noonu la ñu taawile aaya ja yàlla ne déet yàlla ne ah maanaam Seydi Aboubacar lañ ni yar gent na ci xolam daf ni sama doom jii ma jur yaakaar ko may ko rasulullahi mu di ko denc waa jii ma mënal ko lépp def ko ci sama biir kër léppam ma di ko ko jox mu yëkkati tuuma ju day nii di ko safal sama doom rusu ci rasulullahi mi koy denc rusuma ci man mii bàyyam fa te mënal ko ci lu ne su neexee yàlla dana xam ne maak mooma incha allahu danaa ko won ni lii lie koy fay yàlla ne ko déet nag Aboubacar wala yatali ulu lfadli minkum walsaati an yuutu ulu lqurbe walmasakina walmuhajirina fi sabilillah walyaafu walyasfaxu ala tuxibuuna an yaxfira allahu lakum seydina aboubacar ne ah kay man lay bale na nee na yàlla daldi ni ba mu yar gantee ca xol ba yàlla dara réeru ko yàlla ne ah ku ma ci joxati nag aslëf ba nga defee ni ba nga defee ni jekk nga ba jekk nga bul dog sa loxol njekk nag ci ku la ku la def lu la naqari rek tax nga bëgg a dog sa loxol njekk waaw léegi li ma leen di digal yéen ñi ma jox doonte dañ leen a tooñ wal yaafu wal yasfahu léegi na ngeen jéggale may jàmm may njekk moo ndax bëggu leen man yàlla mi ngeen di tooñ te ma bind leen jox leen li ngeen amee ba noppi xanaa bëggu leen ma jéggal leen jàmmal leen Abubakar Siddiq ne ko ah kay yow sama borom
loolu moo tax ma jóg ci wéruma
nee na looloo ko yëkkati ni sax xam nañ ni wérul su ma wéroon xam ngeen ni yéen jaag bi toujours daa ngeen ma gis nee na xam ngeen ne ba muy wér kay di mën a sëlëf zawiye bi duñ ko gëj a gis waaye dañuy wax ne ku dese dese waaye nag li ko yëkkati moo di mënul sax waaye nag wala fay lépp ne ko dese dese awliyaa yi yàlla daje ñu xam leen ak ñu gis ñu bind ci ñoom xam nañu leen duñ dem leen def loolu jox leen seen cër nee na moom moom gaa yi yàlla yii yàlla duut baaraam nee na moom xam na leen xam na seen cër xam na lu ñu yelloo kon du mën a def lu may moo ku ko déggal di leen jox seen cër fu ñu toll rek
maa ngi wax ci benn xasida bu ma doon tagg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu nee na moom mii am na xasida bu mu nose woon di ca tagg sunu sëriñ Cheikhuna Tidiane radiallahu anhu تأمل جميع الأولياء وقد علت مراتبهم والله من كل جهة nee na nee na seetal settantalal xalaatal dawalal sa xel ci gaa yi yàlla yi nga xam ne yàlla yëkkati na leen jox leen bépp daraja bu kowe ràngal na leen ko ma ne ko bëgg naa ñëpp fonk naa ñëpp yëkkati naa ñëpp ca kaw na nga ko digle ba sëriñ bay bind nag ba yegg ca ba def way woowu waxante na ca ak boroomam ne ko fonk naa gaa yi yàlla yëpp nee naa leen safeet yëkkati teg ci sama kaw bopp ñoom ñëpp ma teg ca ne fa wallahi qad saddaqtu rabbi jamiahum walakin abul abbasi rukni wa kaabati nee na mu teg ci ni wallaay yàlla yow mi sa kumpa yow mi nga xam ne dañoo réere woo dara su ku amuloo ci dara kumpa xam nga ne ñoom ñépp fonk naa leen yëkkati na leen ci kaw waaye nag kat waaye kat nag ngar daat yoo naa ca góor googu ñuy dàkkantele abul abbas mu cheikhuna tijaani radiallahu anhu bëgg ñëpp nag
ànd ak nag bëgg ñëpp xormaal ñëpp xormaal ñëpp jox ñëpp seen jox ñëpp seen cër
loolu nee na loolu moo ñuy xamal ne inchaa allahu taala ku bokk ci Seydi Hadj Malick te roy ko loolu daal moo war a xamal ñépp ne képp ku bokk ci maam Seydil Hadji Malick radiallahu anhu te roy ko topp ndigalu Cheikh Sidi Ahmed Tijani topp ndigalal Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu moom mi ko bañ ne ba ne Sidna Cheikh mi ko bañ ba ni dafa ne sama taalube Sidna Cheikh daf ne sama taalube man Cheikh waxul awliyaaw yi waxul wali yii de dafa ne fu mu gisub jullit na ko fonk sopp ko bëgg ko ak lu julli julli ko Seydina Cheikh daf ne sama taalube fépp fu mu gis ab jullit na ko fonk yëkkati ko ca kaw teral ko ak lu jullit jullite te yàlla wax na ci hadisul qudsi ne ñii kat te yàlla wax na ci xadisul qudsi yi ne ñii ñooy sama collaborateur ñooy samay lëngandoo ñoom laa lëngool ku dal ci seen kaw tàkkee naa la guerre képp ku dal ci seen kaw takke naa la geer ñaar la yàlla wax ne dana dana leen tàkke guerre ñaar la yàlla wax ne day danaa defanteeg ñoom te xam ne riba xaraam na ki xam ne riba ndollent ci alal ci lu ca bokkul xaraam na gannaaw ba mu ko xamee ba noppi mu bañ a bàyyi bañ gannaaw ba mu xamee ni lii xaraam na mu të dellu gannaaw ne ca fanax rek di jëfandikoo yàlla wax ne dana dal ci kaw yàlla ne kooku day danaa dal ci kawam bi ci ci alquran la ko wax ci alquran la ko wax bi ci des ci xadisul qudsi bi ci des nag mu wax ko ci xadiisul qudsi ne man aada li waliyan faqad aalantuhu faqad aalantuhu anni muxaaribun la nee na faqad képp aadantuhu bilxarbi ay aalantu lahu anni muxaaribun la yàlla ne képp ku ci léew toog sama waay sama waay joo xam ne ji ñu wax naa ne sama waay ku ci léew toog moom fas yéene defanteeg moom na préparé de moom day bu roppeekoo ca kooka na xam ne maa ngi ci kawam rek lu mu mën na ca dugg maa ngi yaakaar ne insha allah ñi bëgg a yàq duñu am fu ñu jaar suñ bi ne incha allahu yaakaar na ne képp ku sol saw dal bëgg a yàq du am foo jaar ndax man maa ngi nii toog ci seen kanam ak kanamu kilifa yooyu ndax nee na moom mi ngi nii ci sunu kanam nun ñii ak kanamu kilifa yooyu di leen wax la ma xamdu baaba waxoon di li wax nag la Mouhamadou Baba waxoon ma xamdu baaba kilifa gu rëy la ci daymaan Mouhamadou Baba kilifa gu rëy la woon ci daymaan borom xam-xam bu rëy la woon boroom xam-xam bu rëy la woon am na ñu wax ni bokk na ci sëriñu maam Ousmane am ñu wax ne am na ñu wax ne bokk na ci sëriñu maam Ousmane baayu Seydil Haaji Malick waa ca daymaan la bokk ci daymaan la bokk mu ne def na sax ay téere góor googu taalif na sax ay téere Mouhamadou Baba moomule ci droit nee na ci ci droit la ko def am na ca boo xam ne ñu ngi ko tudde mu yassar nee na benn téere buñ cee wax mu yasar sax bokk na ca ba ma koy jàng papa ay ni na sekk moo ma ko abal nee na moom mii ba mu tolloo ci jamonoy di jàng boobee téere bàyyi ay nii na sekk woon ca ndar moo ko ko abal radiallahu anhu yal na yàlla dolli seen leer Hamdu Baba dafa ne Mouhamadou Baba dafa bind ni laysa man axtaa sawaaba bi muxtin ñu ne ko lu tax mu ne in ya ub la wala alayhi malama ñu ne ko lu tax mu ne xasanatu rujui tudhibu anhu sayiati alxata wa tanfi almalama ñu ne ki ki juum nag mooy kan mu ne innama almuxtiu almusil ida ma wadaha alxaqu lajja yaxmi kalama mu mu ne daf ni déedéet du ko dem ba yàgg nga tarfati rek ñuy la tuddee ku jàdd yoon ñu ne aha mu ne waaw waaw boo gaawee daw rek dellu si boo gaawee daw dellu si nee na ndax di- mooy nee na tarfati ba noppi ñu ne la tarfati nga nga nangu ko te dellu si nee na loolee moo lay moo lay moo lay dàqal diw tarfati na wala diw nañ ko yedd dootu ñu la yedd yow kay dañ lay daal di bàyyi rek nga liibar ñu ne ko waaw kon nag ki nga xam ne dafa tarfati nag moom te fasu caa yéen te te it toujours toujours ñu tudde ko ku tarfati mooy kan mu ne mooy ka nga xam ne dafa tarfati ñu wax ko ko mu nuur ca lànk ne du dellu gannaaw nee na kookee de li ñuy tuddee moom tuddewuñ ko sax ku tarfati nee na ku fetteer lu jàdd yoon lañ koy tuddee te fu mu toll ñu yedd ko sama jotaay bi bëgg naa mu jur ñaari bayt nee na kon nag jataayam bi jataayam bi dafa bëgg mu jur mu jur ñaari baytiyam maanaam du jëmmam waaye wax joojee muy muy daq wax joojee muy bañ kenn jàpp ko wala kenn def ko ci sam xel maanaam nangu nañ ni wax la joo xam ne ji donte gën a lul ñëpp warul woon a jib rek nee na kon yeddeel mënu cee tegooti dégg naa it beneen mbir boo xam ne bii loolu yàq la nee na dégg na meneen mbir moo xam ne it ak yàq lay niru ñu tooñ Serigne Ablaye Thiaw askan la ko te du moom nee na ñu waxi wax askane ko sëriñ Abdoulaye Thiaw laay te waxu ko jëmee ko ci kër Baye Serigne Touba jëme ko ci kër maam borom Touba dégg ngeen ko ci rajo bi mu di ko weddi loolu nag gouvernement beeg ñun ñëpp a ci war a taxaw taxawaay bu dëggu loolu bañ di am nee na képp koo xam ne da ngaa invité kadduk nit di wax ci turam wax ju juunu loolu daal nguur geeg képp ku ci am man-man war nga cee taxaw foo ko fi defee rek bu ñu amee ci yow rek tegtal yu wér ñu yar la ba keneen dootu ko def lépp loo xam day teqale bindeef yi ku ko wax ci rajo bi nañ la repoule bu ko nee na lépp luy teqali bindeef yi képp koo wax ci rajo bi dañ laa war a dàq bul fa jege ñetti waaye su fekkee ni lu waxeef rek génneef ko waaye su fekkee ne kaddu gu jub rek ñu siiwal su ci yàlla deful sutura mën naan di guerre bu ci yàlla deful sutura mën naa indi jote ci xeet wi loolu gouvernement bi moo war a dégager ses responsabilités léela nee na nguur gi na ci def waru garam
ñi ñuy sensi sensibiliser nee na léeg-léeg nga gis nag ñu ne nu wusu wax maanaam njëtt wax rek
censure bi ñuy def pour bañ a toucher gouvernement bi gouvernement bi war na taxaw bu kenn teqale ay mbooloom ak i njabootam.
nee na ñu ngi ñaan nguur gi loolu nga xam ne kaddu goo xam ne bu jibee ci mbetteel te it muy loo xam ne dafa ne duut baaraam nguur gi dañuy def nuus jooja wax dootu génn nee na nguur gi it na taxaw ci ni wax joo xam ne mën na jural xeet wi jote loolu yàq la goo xam ne bu yàggee day day def gilintal gu ñuy ñaaf nguur gi kon nguur gi fu mu jibeeti na ko ne nuus tee am na benn Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu nee na Cheikhuna Tidiane yal na yàlla dolli leeram dañ ko ne dañ ko ne ndax danañ la sosal.
dañ ko ne waaw Seydina Cheikh yow ni nga baaxee tabarkalla te nit ñi lu ne liibar nañ ci def ko mu ne yow ndax nit dana la ñemee sosal mu ne waaw waaw yéen a ngi sax sosal.
ah mu ne waaw waaw loolu sama maam yonent bi sax mucc ci ñu sosal ko
mu ne leen su boobaa.
nee na Seydina Cheikh ne waaw waaye nag saa yu ngeen déggee te ñu sosal may wax daal ni maa ko wax wala jëf wala jëf juñ ne maa ko jëf fab leen wax ja ak jëf jëf pesé ko ci balance charia.
da ngeen di fekk balaasu sharia ngeen fab loolee ñu ma neel ci wax wala jëf ngeen posé ko ci balaasu sharia ba su fekkee ne wax dañ ma ko waxal maa ko wax te wala ma jëf ko te du pauvre ak charia fab leen kàddu googu la sànni ko ci àll bi.
su fekkee ne da ngeen a yëkkati kàddu ga wala jëf ja teg ci bii plateau fa poids sharia teg ca te nag mandaxeewul balancé wuñu xam leen ne joojee wax du sama wax jëf ji du sama jëf sànni leen ca àll ba bu kenn dégg bu kenn jëfandikoo.
Seydil Hadji Malick maa ngi amee benn lettre radiyallahu anhu nee na moom mii mi ngeeg leetaru bàyyam Seydil Hadji Malick yal na yàlla dolli leeram ndegam réerul ndegam lettre bi réeru ko te incha allah réerul dafa am ñu ko waxal ay kàddu ci tooñ ko ca penku ca da xaay dafa am ca xaay ñu waxi kàddu wéer ko ci jëmmam ji tedd ca te dañ koo tooñ waxu ko soxlawul waxturu ko ko defoon nee na soxla wala waxturu ko ko defoon léegi tey day jeqiw naqar benn mbokku taalubeem bu tijaan benn mbokkum taalibi tijaan mu fekke wax ja nag ca xaay dama ko waxee nag waaye kooku taalube Seydi Hadj Malick la nee na kooka nag euh, da koo waxee noonu tariqa bee demee noonu sama mbokkum taalibi sëriñ si sax loolu la ñuy wax seeni taalibi waaye kookee fekkee wax ja taalibi Seydil Hadji Malick la mu bind ko ko taalibe boobee nag da di bind Seydil Hadji Malick mu tontu ko Seydil Hadji Malick ba mu jàngee lettre ba nag tontu taalibe boobale ne ko man xuloowuma santuma ku ma xulool ne ko ah dëgg la sax day jot naa sa lettre waaye Malick day du xuloo du sant ku kenn mu xuloo su fekkee ne li ma waxal mooy dëgg ñaana leen ma yàlla yàlla ma ah su fekkee ne waa jooju li ma duural dëgg la ñaanal leen ma yàlla ma dellu ci gannaaw bañ ko jëfati wala ma bañ koo wax su fekkee ne amul su fekkee ne amul nag topp ma ko dara topp ma ko dara baal naa ko lillahi wa li rasulihi
ñu yàlla yóbbu ci boobu néew nee si sëriñ bi ne woowee melu si Hadj Malick mel yal na nu ko yàlla melal li ci def
sëriñ bi ne bi ci des
ay waa ji gaañu de sëriñ bi ne ay waa ji gaañi waaw lislaam dañ koy seetaan nii rek mu lislaam nag moom dañ koy seetaan nii rek kenn du ko jooyal kenn du ko jooyal kenn du ko waxal kenn du ko waxal kon soo lëgee fu ñu jëm moo kon boo lëgee fu nu jëm moom tër ba tëgg na ko de لكل قتيل نائحة ينحنه وليس على دين المهيمن نائح لئن كان ما في الكف دين فكاسد وإن زيد, وإن زيد الراء بعد مد فرابح ci gën a gàttal rek nee na bépp néew bu ne lacc am nga ñuy tëgg seen gémmiñ di la jooyal waaye diine yi buur bi sëpp jaam ñi moom ki dara réerul moom diine ji amul kenn ku ko jooyal moom day léegi jooyaluñ ko maanaam ñàkk a jooyal googu sax yemuñu ci moom kay la baaxoon dañ ko soppi muy lu bon léegi ñu ngar dajjoo ko rek سيد الحاج مالك رضي الله عنه وما كان عيبا صار حسنا توافقا لقد جلبوا للدين كل بلاء ah Seydil Hadji Malick nee na musiba am na nag de maanaam ñii dañu ne woon ni lee baax ñii ni lee bon bala bon xewee ba daj ñëpp nag ñëpp àndandoo nañ ci lee baax la bonoon lépp nee nañ dafa baax léegi.
mu ne itam xanaa léegi jàmm am Maam El Hadji Malick tegaat na ca feneen ne xanaa jàmm nag war naa am ñi réere woon gindi konte nañu comme ña réeroo woon dañoo gindi konte léegi.
ñu waxoon ci lislaam dara ñi ci waxul woon juboo nañu maanaam ña waxoon ci lislaam dara di góorgóorlu ñu ne ñu baax ñaa nga ne ña waxul ci lislaam ñu ne gaa ñaa nga ne léegi ñoom far nañ ne rëppaj ànd.
ñëw rek rek ñu sëgg mu paase lu ñëw rek ñu sëgg mu jël leen dale ko ci suñu bopp dale ko ci suñu njaboot dale ko ci ñuy yilif kenn Tey- du tere kenn du digle te càggante gee nga dale ci sunu kilifa yi diine yi dale ci nun ba royaat ci sunu njaboot ñépp rek toog di xoole te Seydina Omar ibn Khattab door na doomam te sidna Umar ibnul Xataab radiallahu anhu dóor na doomam ci yoon ci yoon kon nag jaadu na ca dëgg dëgg ñu dolli ak takkaay yi te taxawal maanaam ba doomam defee lu ko yoon duma yóbbu na ko ci penc ma duma ko te mooy amirul muminina nee na ndek kookee mën a def loolu war nañ ko cee mën a roy ñun ñépp taxawaat temm ñanu taxawal yàlla nañu taxawu lool yàlla su noppee ñu door a taxawu lool suñuy sëriñ ak suñu diggante waaye loolu yàlla moom nañ ko taxawu ba mu féete boor li ci des nag muy sunuy sëriñ ak sunuy diggante nu door cee kos-kosi nag te defar suñu bopp te defar suñu bokk bañ a texalikoo bu nu teqalikoo suñu demee ba waa àdduna na ñu ngi juboo ñoo xam ne àdduna lañ doon xëccoo bu ñu demee dem nag ba ñu doon xëccoo aju àdduna ni juboo nañu te ñooñu ku ci jaaxle l'islam mi ngay ñëw pour ñu dimbali te ñooñee kat ku ci jaaxle lislaam bi ngay bàyyi xel ndax mu dimbale la ñun ñu dëkk ci xeex guddeeg bëccëg ñun waa lislaam nag ñu dëkk ci xeexoo guddeeg bëccëg tarixa sangamay sama tarixa kenn koo gis muy wagganti ku tariqa sàng may sama tariqa rek wala ñoo bokk tarixa sax waaye man kii wala nga gis kii naan noo bokk tariqa waaye bokk nuy sëriñ loolu jaaduwul loolu du melowu jaadu te itam suñu ragalewoon tewul gannaaw xam nañu ñun ñii fii ñu nekk ci dund gi ñu dund suñu dund gi wóorul dara dara nee na bu ñu naxantewul jeyante wuñu xam ne façon dund gi ñuy dund taxu koo wóor de wóorul de te daxañ may nee na woon maam alxaaji Malik dafa waxoon ni gisuma diine ji yaakaaru ci jamono bii ma nekk di dund xanaa yërmande yàlla moom kat booba sax baax desandi naa xew mu toog ba yàgg mu ne ah man Malik day gisuma ci jamono ji diine ju jar yaakaar dara dara dara ah xanaa yërmande yàlla Seydi Abubakar ne man day maa ngi mañ Babacar day maa ngi bëgg a waaru Sidi Aboubacar doomam bi waxoon na ko nee na woon man day maa ngi bëgg a waaru man Babacar ndax booba dafa bind leetar ca ndar ne naa ko jàng ndax booba dafa bindoon leetar yónnee ko ko moom mii ca ndar ne ko na nga jàng leetar ba ca jàkka ja booba def si ci mag ñaa nga fa booba ndar desen ni mag ña demaguñu suñu sëriñ ma nga fa sëriñ Birahim booba sëriñ Birahim Diop radiallahu anhu nga fa waaye suraxatu jàng góor gi suraaxatu jenn Cerno Abdourahmane Diallo Cerno Abdourahman Diallo Birama Diallo Birama Diallo Mokhtar Ñang Mokhtar Ñang Iba Diop Fekkam Ibba Diop fekkam ak ak Oggo Seck góor gu ñuy wax Oggo Seck bari nañu booba mag ña bari nañu mu ne man Babacar li ma jaaxal gis naa lool permis yi ñu signé te man xaw ma ki ko signé kanam nee na ba nga xamee ni Sidi Aboubacar a ngay wax ca lettre ba di wax ca lettre ba ba yàgg am na ci jumla ju mu bind nag maanaam mooy phrase bu mu ca bind ni man day liberté bi ci réew mii man day réew ba ci biir réew mii man Babacar permis la boo xam ne jaaxal na ma ku ko signal nit ñi mu ne ci ñaari yëf ci diine ji rawatina tariqa Cheikh na Tidiane yi bi ñu bëgg a jàpp di ko fooye rek maam alxaaji malik ni ña asawurla si di abubakar ra- si radiallahu anhu ni ñaari yëf a ngi nii ci diine ji maanaam ba ci tariqa bii ñu jàpp rek di ko bëgg a foye
loolu daal jaaxal na man Babacar loolu daal jaaxal na babacar leetar boobu moo ko bind ci loxoom leetar boobale si di abubakar ko bind ci loxol boppam la moom mii moo ko jàng ñu julli timis wasifa julli gay ma jàng ba mu koy jàng ca ndar waxtu gee la ndax dañoo julli timis wasifa julli gee mu jàng ko ñu door a tasaaroo mu mel ne nag léegi mbir mi dafa gën di yaatu loolee nag dafa mel ni dafee nekk ba tey jógu fi mbir mi day gën a yaatu sax te kilifa du mën a ñàkk te kilifa mun la ñàkk ci àdduna ñun bu ñu waxuñu ne Cheikh Al Hadj Mali rek moo di waliyu nee na waxuñu ne Seydil Xaaji Malik rek moo fi doon waliyu waxuñu ne Cheikh Sidi Ahmed Tidiane rek mooy waliyu waxuñu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane rek ay waliyu waxuñu ne moom rek a am tariq waxuñu ne moom rek a am ab tariqa ay tariq turuq jiitu na ci tariq nee na tariqa yu baree bari jiitu nañ fi bu Seydina Cheikh bii Tidiane bii waaye ñoom ñëpp dañu boole woon seen bopp muy benn waaye mag ña waaye gaa yi yàlla yooyu fa nekkoon la tariqa yay bari baree bari ak seeni boroom terewul woon ñu boole seen bopp ñuy benn di jullit Cheikh Saadu abihi radiallahu taala anhu cheikh saadu abi radiallahu anhu ca gànnaar ca defaru ba ca yàlla ca defaru gu mu defaru woon ci wàllu yàllaam tagg na Seydil Hadj Malick ba tagg tariqaam tagg na Seydil Hadj Malick ba tagg tariqa tijaani bii Seydil Hadj Malick yoroon ne wér dem benn wér du melu ni nee na woon Seydil Hadj Malick sa werdu wii nga ŋànk wenn werdu mel ni moom Seydil Hadj Malick tagg ko Seydil Hadj Malick it delloo woon na ko tagg ne ko yéene ñi nga xam ne lu waay am fii ak ëllëg ci yéen ne ko yéen day yéene sang yi nga xam ne lu waay am fii ak lu mu yaakaar ëllëg ci seen daraja rek la koy jaare seetal loolu seetal woowu nekkin wu rafet woowu melo mu yal nañ ci yàlla yóbbu woowu melo daal sëriñ bi ne yàlla nañ ci yàlla yóbbu te gaa ñi ku dese war a dese te dara sëriñ bi ne wax dëgg yàlla ku dese dese ku ne li fi dese li fi dese yaa ko moom waaye li fi yëngut yaa ko yaa ko yilif nañu góorgóorlu fóot xol yi nañu góorgóorlu nee na fóot xol yi seetal Seydil Hadj Malick kii teggi na nee na seetal Seydil Hadji Malick ci tegginam yu mu am kàngami Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bari na lool lool lool nee na kàng mi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi bari nañu lool ku ci nekk Cheikh duy na la ba nga fees dell sëriñ bi bi ngay laata commencé waxtaan wi bàyyal xaaji Maxtaar Géey saltige dafa ñëwoon toog ndànk rek ci sa wet mi ngi nii léegi itam alxaaji Abbas Géey dugg si na moog yeneen kilifa ñi ngi nuyoo di ziyaara maa ngi leen di ziyaar ah ñu ne sëriñ Lamine Diop nee na nee na mi ngi ci mbooloo mi moom itam ah kon nag ndeke man su ma déggee dana am déwénal kay sëriñ bi nee na moom kat nag ndeke moom waxtaan wi ndeke yoo nag am na leneen lu ko ci yàlla roofal tur yii ma ko fi tudd wóoral na ko ni bu ñaanee balaa dugg cooto bi ndéwénal moom dana ko am moom su ko defee nag nee na su ko defee nag
ñun ñëpp ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defaral ñu xol yi ñun ñépp nañ ñaan borom bu barkeel bi te kowe mu defaral nu xol yi Seydil Hadj Malick dañ ko yéem ne ko yow day yaa mën a muñ xam nga maam Alaaji Malick dañoo toogoon ba yàgg ñu ne ko góor gi yaanu jaaxal man de góor gi ni nga mënee muñ dafa mel ni amoo xol mu ne waay bu leen ma tooñ waay maam Alaaji Malick ne waay waay waay bu leen ma tooñ ku juddoo diggante Jolof ak Waalo man kay ñi ma séq ku ñu séq diggante Jolof ak Waalo ku ca juddoo moom na ngay def ba amoo jikko dama am fu ma ko denc rek man kay xanaa dafa am fu ma ko denc bay mën a maslaa ak ñëpp rek
su su ko ko defee nag defee nag Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu sunu sëriñ Seydil Hadji Malick yal na yàlla dolli leeram
nañ dëgal naa ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi aju ci Cheikh na Tijaan yi lu ñu wax sallamal naa ko nee na daf daan wax ne képp ku aju ci Cheikhuna Tijaani sallallahu alayhi wa sallam wax jooju nangu naa ko fonk naa ko gëm naa ko waaye ku ci wax it man damay dal di jàng ngi fekk Cheikh na Tijaan yi waaye Cheikh El Hadj Omar waaye nag su wax yi suñ ma jógee fu ne te yépp di dëgg nag damay daal di jaar nag damay daal di jéng nag ci wax ji nga xam ne moo gongeekoo ci sama sëriñu sëriñ Cheikh El Hadj Omar Fouti radiallahu anhu suñu fi jéggee Seydi El Hadj Malick nee na kon suñ fi jéggee Seydul Hadji Malick jéggi Alfama yow jéggi maam alfahim ma yoro wele jéggi ak Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiyallahu jéggi Cheikhul Hadji Omar al Fouti yu yal na yàlla dolli leeram ci laa sañ a wax ndax mooy suñ ñooy suñu wasaay nee na moom ci googu càllala la sañ a waxe ndax mooy càllala gi nu lonku nun jéggi Cheikh Mouhamadul Ghali jéggi Cheikh Mouhamadul Ghali radiallahu anhu Abdoul Aziz bëgg Cheikh na Tijaan mu taxaw Abdou Aziz bëgg nag moom di Cheikhu Tidiane yi mu taxaw ñun taalibe yi kenn ku nekk bëgg na yee Cheikh na ñun taalibe it ku nekk beru fële na maay Cheikhu na Tidiane ida kunna Cheikh al Tijaani ayna Cheikh al Tijaani waaw nun ñëpp mun bëggee di Cheikh nag maanaam Cheikh ci boppam nag léegi amatul amatul xanaa Cheikh nag moom kon nekkatu fi kenn ku nekk lu la neex turu wala neex rek bu am boo xam ne am na limite nga jël jëfeel ko sa bopp te tariqa bi waxul loolu maanaam léegi ñu ne la wet loo dégg ñu loo gis ñu bind ci téere wala nga dégg nit wax ko ni baax na nga ne la wet rek di kalan-kalangi di jëfe mel ni tënkootoo ci ndigal te tariqa ku ca tënku da ngaa tënku ci ndigal dootoo jëfe lu la neex feeg amoo ci ndigal am na benn waay bu mas a wàcc sëriñam am na benn waay bu masa wan gannaaw sëriñam mais dafa bëgg fatxu ni man daal dama bëgg nag yàlla ubbi ma fu gën a gaaw fii ma jàpp dem ci keneen koo xam ne kii du sëriñam di ko lëjal ba mu jox ko tur dem ci keneen ku du sëriñam ne ko man daal fa ma jàppoon nag yëf yi dafa yéex ma bëgg lu gën a gaaw dimbale ma waaja jox ko tur ba ko yëfee feeñoo waaye ba muy kalang kalangee tur wa ba mbir feeñu ko ca mu daw di war la utiqu nee na muy tëb rek di daw koñ bu mu course rek naan laa utiiqu attanuma ko de laa utiiqu mënuma ko supporté de laa utiiqu lëjal na ma de laa utiiqu sonal na ma ba loolu ca la dee ba ca loolee laa utiiqu laa utiiqu rek ba ne kayam dee
médecine bi yaatu na de nee na xam-xamu faj yaatu na soo fekkee koo xam ne kii xamul bëñ nga jox ko sa waaye boo fekkee koo xam ne ay siddit la mën a faj yow sa bëñ di metti koo xam ne li muy spécialisé mooy ay siddit wala yàq nga dem jox ko say bët doo xam lu ci wala say bëñ ah bootul mu buddi bëñ boo xam ne ku ko buddi musiba am te itam te it man kat sañ ma digle waaye sañ naa waxtaan ak samay bokk nee na moom nag digle ñaare nee na ñaare daf koy xaw a teet waaye nag sañ naa waxtaan ak bokki jullitam jaaduwul man ak sama morom kenn ku fi jógee rek ñu ne nañ ko wasifaal nee na jaaduwul li ñuy def kuñ ne dee na ñu ne wasifaal leen ko wasifa ñëpp mérité wu ko te teewul nga di tiijaan sax Seydil Hadj May ñaar la ma sa wasifaal maam Alaaji Maalik giiru dundam ñaari nit la ma sa wasifaal góor gi ma jàccaane góor gi ma jàccaane te ba ma àggee ca juróom ñaari jawaasul kamal dafa jóg te dañ koy wasifaal ba ci juróom-ñaari jawharatu kamal rek maam Alaaji Maalik dog wasifa woo sëriñ Abdou ja bàyyi sa oustaz Omar Dia bu sa ngeej góor gi Qaadi Alioune Jabi jur Alaaji Omar Jabi wax ci rajo bi dëkk Tëngéej moom doomam la woon taalubeem la woon bëggoon na ko lool doom la woon ci Seydil Haaji Malick ab taalu béema Seydil Haaji Malick bëggoon na ko it te booba nag nit ñi booba yàlla lañu soxla te waaye booba it nit ñi yàlla lañ soxla duñu duñu gis ku def nangam rek te nekk seen kanam ñu daal di dëkk sa demal booba duñ ne rek lu waay def gannaaw mi ngi ci kanam rek jaadu nañu def ko déedéet ñu laaj ko ko ñu laaj ko nag Seydil Haaji Malick mu ne li ñu bëggoon am nañ ko mu ne ñu ne ko booba Seydil Haaji Malick ak li màggaayu dara jaam ak biir njabootam yépp ba mu ne dog leen wasifa wi da di ko tëj ñu ne ko ah góor gi nun de miinu nu woon wasifa wuñ def te yeggul mu ne nañ ko dog mu ne wasifa te dañ ci doon am luñ ciy wut mu ne waaw mu ne bu yeggee ñu ne waaw mu ne am nañ ko te yeggul moo tax ma dog ko
te itam te itam nag loo fonk fonk sa yilimaan lépp loo fo boo fonkatee say limaan loo ko fonk fonk su njàpp ma tojee waaye waaye ilimaan bu jullee ba ca biir njàpp la toj ne ko demal yeesa ah waaye ne ko subhanallah demal jàppaati bu ko ne subhanallah ah waaye waaye demal jàppaati ne ko demal jàppaati nag amatoo njàpp Sëriñ Hadj May dafa toog ci jag saaw sëñ bi ne Seydil Haaji Malick toog na ca jag saaw mbooloo mi bari lool mbooloo mu bari wër ko
am ca ku njàppam firi am ca koo xam ne xam naa gëmmentu jàpp na ko ba njàppam fireeku dégg nañu ko dégg nañ ni njàppam lii fireeku na am nañu ko ñu ko ci xam sax am na ñu xam sax bu wér nii def le- def def li amatu ci waaye Sëriñ Hadj May ca teggin ya waaye Seydil Haaji Malick ci tegginam yu bari dafa ne bu kenn laaj daf ne bu kenn laaj dara de ñëpp nañu nun ñépp nañ jóg jàppaati rek
mu jóg jàpp ñeneen jóg nee na ñépp jàppandoo waaje jàpp ca biir am njàpp jàpp unit tabas tabaxu ci la nee na loolee masala la moo xam ne ñun ñëpp jàng nañ ko Seydil Haaji Malick maanaam masala la moo xam ne daf ñu ko yeesalal nee na su su sobe toqee ci malaat bi nga gis ko nii mu di ñuul ñuul wala xonq-xonq fab ko rax ne malaat mépp ne ko yeguub ci paanub ndox soo ko yëkkatee mu laabandoo ki ma gis mu ñaareel ko nee na keneen ki mu gis mu ñaareel ko moo di suñu najaay sëriñ Mooram sa Kébé bàyyi sëriñ Lamine Kébé yéen suñu yéen moo di nijaay moorante kebe mi juru sëriñ Lamin kebe mii di jiite ji jii jamono sawiya Seydil Haaji Malick ci Tiwaawoon moo ngi ko wasifaale ci buntu néeg bi mu daan jàngale maanaam wasifa wa kenn la woon bu jëkk ki ko ñaareel moo di nijaay moorante kebe day moo jiitu Seydil Haaji Malick ay fan moom it Seydil Haaji Malick wasifaal na ko la ko teree dem ca dëj ba ca pir booba dafa am ngant borom bopp jàpp ko moom jàkka ji sax demu ca bañ ko tàggee sëriñ Morante Kebe moom Mamalaaji Malick Mamalaaji Malick dafa fekk borom bopp daaneel ko mun la jóge Tiwaawoon dem Pire ca dëj ba moo si faal ko nag Tiwaawoon mu yebal suñu bàyyi mbàkke rakkam mu yebal maam Mbakke si rakkam waaye nag ma di leen yëgal ne lii su yàggee rek dana dem a dem a dem ba tarixa bi bëgg a woyof ci ñun waaye nee na man-man bi ak man-man bi ak liberté bi lu la neex yëngal lu la neex jëfe loo gis dañ ko kumpa bu yàggee tariqa bi dootu am valeur ci ñun te kon waliyaadu billahi wala ku ci warul jot jot ci wala ku ci warul jot jot ci ku ci warul dax war a da- war a wax ku ku ci warul wax dara wax.
ku ro- ku ci amul yoon wax ci dara it daañ ko bil yoon wu mu ci waxee dara te it kookee lu mu am ci bakkaar daa ko am ndax man sànna ja.
nee na te kookee dugg ci tariqa bi yoonam nekku ci wax ci lu ko ci warul lu ko ci fekk ci bakkaar fekk la ci yow ma ko ci ubbil buntu ndax xadisu yonent ba képp ku ci xàllati aw yoon wala nga jëkke jënn jëf wala nga fent dara am nga ci ñaaw téef am nga ca bakkaar ak bakkaaru képp ku la ca roy man kat aw ma ndigal aw ma dara jay digle waaye am naa boob ci xàqu dëkkaale su ma gisee lu ma ragal moo wax ko ña ma bokkal.
nee na moom day nee na amul sañ-sañu wala boog du ko jëfandikoo sañ-sañu digle waaye nag am na nag am na dëggu gu day ni nag sañ naa waxtaan ak i bokkam lépp lu mu gis muy ñuul lu ci bokkul ñu jàng kaamil def ci daaw nee na su nit deetee nañ jàng kaamil def fi daaw doy na yaa yaakaar naa ko nee na yaakaar na ni moo gën ku nekk kii rek ñu ne nañ ko wasifaal ngeen baal ma xàq na nee na nag nañ ko baal àq ci loolu de waxuma ci affaire kilifa ci diggante nit ak mbokk moo tax di wax nee na waxul ci kilifa guy wax ak ña mu yilif déedéet day wax ci cadre mbokk ak mbokkam li ci des nee na li ci des
su ma doon gedd gedd kat sax dana ko or bay nee na moom de bu doon gedd sax bu doon gedd waaye du mbiram nag kon dana ko bàyyi waaye man dama di jaam gannaaw moo nekkee jaamu yàlla dama di jaamu bépp julli rawatina koo xam ne kii ci xadara bi nga bokk nee na waaye moom du jàpp njàmburam ci benn mbokkum jullitam rawatina na kuy askanoo ci xadra bile